أعوذ بالله من السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم mbokk julli di mbokk taalibe yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dellu si ci suñu waxtaanu thème de la semaine ñu war ko def tey di ay laaj ak tontu ñu war ko def ay laaj aki tontu la ëpp ca laaje di jëm ci fiqul muamalat muy jaay ak jënd jaay ak jënd naka la ko lislaam yoonale ak la ca aju bi ci njëkk bañ ci njëkk mooy atteb ku jënd alali sàcc koo xam ne dafa jënd alali sàcc waa ji dafay laaj ne lan mooy àtteeb ku jënd alali sàcc te ba mu koy jënd xamul ne alali sàcc la ginnaaw ba mu ko jëndee ba pare mu wóoru ko ne ko lii mu jënd kat alali sàcc la ndax day taxaw ci delloo ko kañ ko sàccoon kañ ko sàcc ci moom su fekkee xam na ko daldi koy laajaat njëgam maanaam njëgam ko jënde woon walla njëg gi day dem laaji ko maanaa kam ko jënde ca moom ka ko sàcc jaay ko ko ndax ca moom lay dem laajaat ko njëgam walla kiñ sàcc alal ji ci moom bu fekkee xam na ko day dem delloo ko alalam ne ko mankat nangam laa ko jële woon dama bëggoon nga delloo ko loolu mooy soal bi mooy laaj bi mu mel ne tontu bi dañuy wax ni képp koo xam ne jënd na jënd na mbir te xamul ndax dañ koo sàcc am déet te bim koy jënd benn màndarga feeñut buy tegtale ne alal ji mu jënd kat alali sàcc la amul benn màndarga bu koy wan ne ko alal ji mu jënd kat dañ ko daan jël maanaam dañ ko siif wala dañ ko këf wala dañ ko agressé jaay ko ah su fekkee amul benn màndarga bu ko koy wan te waa prix normal la ko ko jaaye foofu kat olamaa dañ naan dagan na ci moom mi jënd mu jëfandikoo mbir moomee gépp anam goo xam ne sharia daganal la mu jëfandikoo ko ca maanaam dagan na ci moom mu jëfandikoo ko ci ay ajoom loolu mu jënd dont àlli sàcc la waaye ba koy jënd xamu ko bu ko wóoree ne lii nag alali sàcc la waaye xamut boroom xamut kiñ ko sàccee jaay ko ko xamu ko dañ nan ko warna ci mom mu dello ko ki ko jaayoon ki ko sàcc jaay ko ko na ko dello jilat jëlaat ko njëggam ko jende won nangu ci mom njëggam ko jende won su fekke lolou man nané bu lolou jappandi wut nak moy lu melne bi faqir la ku ñak la yur dara wala lam ko ko jaay won sank nako te waaji nga xamne mo jënd alal li ji mom aaje mbir te wax naa la ne la ba mu koy jënd xamu ko aaje woon na mbir mi kon bu boobaa daggan na mu jëfandikoo ko su fekkee xamul boroom waaye bu xamee boroom moom la ko war mooy mu delloo alal ja borom waaye su fekkee am na njort lu wóor ci ne alal ji diwa ko moom bu boobaa moom da koy delloo comme niñ ko xewal waaye su ko neexee tamit mën na ko koo saraxeel maanaa bu fekkee xamut ki moom alal ji comme doon sàcc nañ ko ko jaay ko ko xamut borom waaye wóor na ko ne alali sàcc la te mënatut jot ca la mu ko jënde woon kooko ulamaa yi ne nañ daggan na ci moom mu saraxeel ko boroom maanaam kaj ko sàccoon ci moom mu saraxeel ko ko ngir ñu mën a séddoo tuyaaba ji su ko defee dana ci am tuyaaba ju bare bare bare bu soobee yàlla waaye su fekkee xam na boroom xam na borom alal ji day taxaw nag temm ci delloo ko alalam waaye su ko delloo alalam nag sëñu ko ne ko man kat nangam laa ko jënde woon ci ki ko sàccoon ci yow loolu danga ma koy delloo loolu sëñu ko waye dagan na ci mom nak mu leeral ko ko ne ko man kat nangam la ko jënde won lolo lañ ci jublu moy borom alal ji man nako jox genn wal ga genn wal ga ko jënde won ci ko sàccoon ci mom man nako ko jox genn wal ga ngir yeeram ko ngir waye falal ko perte gi ndax julit kat dafa wara dimbulenti ak morom julitam ndax yonent bi alayhi ko wax mo ne wa ta'awunu alal birri wa taqwa na ngeen dimbulenti ci ak mbax ak ku ragal yalla ci suratul maida aya ñaar kon dimbulenté ko ko war tax mu dimbali ko ci waye falal ko perte ga jox ko genn waluk lam ko jëndoon waye nak du wajib bu ko nexé mu bañ du ko délo dara alal sa ci mu ko jënd yaay perte kon lolu warnatah tax julit bi li jënd mu sétantal ko ba xam alal ju alal juñ sàcc la wala juñ sàccut kon war na koo seetantal mën na koo xamee ci njëgg ndax kiy jaay alali sàcc moom du ko jaayee prix normal en général te na fexe bu bu mu ci alal bu mu jënd marchandise ci koo xam ne dafa ñaaw njort ci moom dafa ñaaw njort ci ne xëy na alal ji da ko sàcc wala mandarga yu tegtale ne daa sàcc alal ci feeñ comme ni ma ko waxoon mu bëgg ku ko jaayee lu yomb lool loola bu mu seet yombaay bi ba tax mu jënd ko kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam solo nañ benn xadis boo xam ne bay bay xaq yi moo ko solo ci yonent bi nee na yonent bi nee na man ishtara shay'an wa annaha ya'lamu annaha sariqatun faqad ishtaraka fi ithmiha wa aariha yonent bi nee ku jënd alali sàcc ku jënd mbir maanaam ku jënd matériel te xam na ne lii mu jënd alali sàcc la moo ko ko sàcc ñooy bokk bàkkaar bi ñooy bokk gàcce gi ñooy bokk bàkkaar bi ñooy ga gi olomaa waaye nag ci loolu lañ tegtaloo ne nit ku nekk war naa xam ne maanaam njort lu wóor day taxaw taxaw palaasu xam day taxaw palaasub xam wa alam anna galabata danni taqumu maqaama al ilmi fi mithli hadi al mbir yu mel nii njort lu wóor boo ko ci xasee am rek wala mooy dañuy jàpp ne xamoon nga ko xamoon nga ne lii àlali sàcc la boo ko jëndee yaa ko tey kon loola mooy tontu laaj boobu ci ki jënd àlali sàcc ñu dikk ci masalab kii laaj mu ne dama toog ci marché bi kenn ci sa kenn ci nit ñi daldi ma fay fekk daldi bëgg ci man ma jaay ko marchandise moo xam ne awma ko waxtu bi ko sàkku ci man awma ko waaye man kat xam naa ka ko ka ko am ndax dagan na ci man ma jaay ko marchandise mi nga xamne xamna place bam nek xamna xam naa manam luy njëgam ñaata lay jar ndax dagan na ci man wala daganul mana da bok ci ñi nga xamne dañuy tok ci marché bi xeyna te amuñu place ndax marché bi dang ko ci gis leg leg maanaam moy jaay lo amut jaay lo amut nit dikk ne la man kat dama bëgg di sangam nga ne ko am na fi de mu jox la xaalis nga dugg dem ci palaasub jàmbur jël marchandise ma indi ko jox ko am na fu muy dagane am na foo xam ne tamit lislaam daf koy tere fi muy daggane mooy su fekkee marchandise mii muy sàkku ci yow ngir nga indil ko ko am na fi am na fi yow amoo ko waaye xam nga palaas bi mu am xam nga njëg gi muy jar xam nga place bi muy am xam nga njëg gi muy jar charte la ci te man nga ko indil ci waxtu jage maanaam wu la man nga ko indil léegi léegi te boo indil doo soppi njeg njëgg gañ koy jaaye ga ko borom di jaaye doo ci soppi dara bu boobaa kat dañ naan kon dagan na ci yow nga laaj ko xaalis ne ko indi xaalis mu jox la ko nga dem indil ko marchandise mi léegi léegi Lalu boko defé defee oromaa ne nañ loolu dagan na waaye ni bi nga xamni mo deugulun façon bi deugulun moy bu fekkee marchandise mi dala sori moomoo ko place bu jàmbur de place ba dala sori te mënoo ko ko indi legi legi wala boo indi tamit faaw nga wañi faaw nga soppi masalan 5000 la ko don jaaye ni jël ko place am dik laaj waa ji 6000 mu jox la 6000 nga dem ca borom place ba jox ko 5000 téye sa 1000 francs loolu dëgganul wala yow wóoru la ba xam marchandise bi am na ca place ba am déet da ne ko diw eh, diw de am na ko wala indi ma indi la ko fa nga ko njorte amu fa walla wóoru la dal ndax imma mën naa jamtalu ne borom magasin bi marchandise ma jaay na ko téye ko. wala yokk na njëggateegoo ko imma léegi mën naa yokk njëggateegoo ko xëy na gëj nga fa kon loolu su fekkee wóoru la danga ngay jël xaalis ba wala sax xëy na borom marchandise ma sànq na marchandise ma wala denc na ko waaye da ko dencal ay mbokkam ay jege ñaaleem wala ay xaritam loolu lépp su amee dëgënut moom waa ji nga xam ne dañoo bëgg a jënd ci moom marchandise mu mu amut daganut ci moom muy ngëpp xaalis ba dem di wari marchandise ma waaye dagan na ci yow yow mi nga xam ne yow la dikk ci yow ne la jaay ma marchandise sàngam te amoo ko dagan na ci yow nga dikk ko dig gu rafet ne ko bu jàppandee ci marché bi daal dinaa dem place su diw su fa amee daal dinaa la ko indil su fa amul du mën a ko indil ba pare teg ca insha allah nee na ulamaa yu neen su waxee loolu dara nekku ca dañuy bañ tamit mu ngëpp mu jël njëg gi ne ko indi jox ma xaalis bi dinaa la ko indil loolu lañ cee bañ mooy maanaa ak cànkute man na ca am loolu lañ cee bañ comme que marché bi néewut ci moom dañuy bañ mu jël xaalis ba di wër ak moom ak yooyu ndaxte ay ah, ah, ah, mbuxum ak yu mel noonu mën na ci am loolu la ci lislaam di bañ ak tamit tardeel temps muur ba sonn amu ko ba pare dikk delloowaat ko xaalisam tardeel temps tamit dañ ko cee bañ jëli nañ ci benn xadis boo xam ne muslim moo ko solo ak abu daawuda ak tirmidi ak ñeneen ñu dut ñoom ñu jële ko ci xakim ibnu hizam radiallahu taala anhu xakim ibnu hisaam nee na dama dama ne qultu ya rasulullahi yatini rajul fa yasalani an ilbayhi laysa indi ma ma ubiahu thumma btaahu min alsuuqi fa qaala la tubic ma laysa indaka xakim ibnu hisaam nee na damaa dikk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yonent bi man kat góor daa dikk ci man di ma laaj marchandise moo xam ne awma ko bëgg ma jaay ko lu ma amut ndax daggan na ma dugg ci marché bi wërali ko ko am déet sasam ne ko laa tubi ma laysa indaka bul jaay lu nekkut ci yow bul jaay loo amut jullit bi dëgërut ci yow muy jaay lu mu amut ay laa tubi ma laysa xaadiran indaka bul jaay lu teewut ci yow wala xayban fi milkika bul jaay loo xam ne nekkut ci yow maanaam nekku fi waaye nekkut ci sag moomeel walay sa tax taxaw zika te nekkut ci sag maanaa nekkut ci sa kilifteef loolee yoon sasam loolu la ko tontu ne ko bul def loolu bu la dara jaral def loolu kon mu mel ne loolu mooy tontub li nga xam ne dafa toog ci marché bi amut place léeg-léeg gis ci koo xam ne ci marché bi amut place day wareelu rek day nit ne ko marché di sàngam la bëgg mu ne ko am na fi dem lijjanti ji ko loola loola la ñuy bañ charte yiñ ci yiñ ci tëral faw mu nekk fu jege te bu mu soppi njëgg te na xam lu muy jar sart yooyu bu dajee mën naa mën naa laaj ki jënd xaalis ba dem indi ko loola boobaa dara nekku ci waaye bu sart bu ci benn xëttee rek daganut muy muy jël alal ja mu mel ne tamit li ñuy wax li yonent bi doon tere laa bayataani fi bayatin daganut menn njaay ñu koy jaay ñaari njaay maanaam ñaari njaay ci menn njaay daganut ci lislaam loolu mooy lan aji laaj ji dafay laaj ne dama dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu tere ñaari njaay ci menn njaay ndax lii wér na bu fekkee wér na ci wan melool maanaam mooy lan ñaari njaay ci menn njaay mooy nan nuñ koy xame ndax tere gi ko alayhi salaatu wasalaam tere terek araamal la wala terek sib la loolu lay laaj ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere na ñaari njaay ci menn njaay xadis bi abu daawuda moo ko solo ci sunnaam sunanu abu daawuda jële ko ci sayiduna abu xurayra abu xurayra nee na qaala rasulullahi sallallahu man baaca bi baycatayni fi baycatin aw kasahuma aw riba yonent bi nee na ku jaay ñaari njaay ci menn njaay na jël njaay ma ca gën a néew na jël njëg ga ca gën a néew wala su ko deful rek jëfandikoo a riba wala tere gi nag tere araamal la melo yu nu muy mel maanaam wan melo maanaam ban suura ci la jaay ñaari njaay ci menn njaay di ame mooy góor gi dafay jaay marchandise keneen meneen moroomu góoram ci njëkk bu ñu xam lu may mu mel ne jaay ko marchandise mi ci junni ne ko jaay naa la dàll yi ci junni jaay ko ko ci àpp bu ñu xam ne ko dimanche bi ñu jëm nga may fay nag ñu waxtaan ba juboo mu ne ko jaay naa la jaay naa la ko ci junni te dimanche nga may fay mu ne ko aw waaye ba dimanche ji jotee moom mi jëndoon walla moom mi leboon daa amut lu mu faye ki ko jaayoon ne ko comme que dimanche bi ñu waxante woon jot na te amoo mu faye léegi dama la koy jaayaat ci set 7000. ba weer wi dee bu fekkee waa jooju daa nangu ne ko waaw ba ba weer wi de ma jox la sept mille bu weer wi dee lañ njëkkoon a waxaale rek ca moom la koy fay muy cinq mille ba dëgganul mu di ko jox set mille loolu la yonent bi doon wax naan fa aw kasahuma aw riba ay fa law aqallul bayatayni thamanan aw yakunu murabiyan loolu mooy suurab ñaari njaay ci menn njaay njaay moomu njaayum riba la bayu riba la njaayum riba la mu melni amna benen sura beneen melaw wuñ koy xamé moy mom ñaari njaay ci benn njaay njaay ñaari njaay ci benn njaay benen sura bi moy nga wax ni ne ko jaay na la mbir mi marchandise mi ci jooni waaye ci sartum nag yow nga jaay ma sa kër gi wala nga jaay ma sa oto bi lii njaay mu yàqu la maanaam dama lay jaay nàngam ji waaye ci sartum nga jaay ma nàngam ji yow su loolu amul duma la mën a jaay lii duma la duma la nangoo jaay lii loolu daganul njaay moo xam danga ko aj ci nàngam bala ma lay mën a jaay danga may jaay ba pare loolu tamit danañ danañ ko firee ñaari njaay ci mel ni jaay boobu it daganut kadaalika ngir taxaw wérug mel njaay mi faw day aju ci meneen njaay mi maanaam meneen njaay mi balaa wéy njaay mi balaa wéy day aju ci meneen njaay loolu moo tax ñu di ko tere ci lislaam te islaam lu leer la ci ni muy doxale lu leer la aw doxalin moo tax day bëgg lu leer ci mboolem jëflante yi jullit ñi jëflante muy muamalaat yi islaam day bëgg mu leer nañ ba wor du ci dugg ak xëccoo ak forcé nit ak yu mel noonu kazaalik nga xam ne day xaram kon loolu mooy tontub laa bayataani fi bayatin ñaari njaay dëgganut jullit bi mu di ko jaay ci menn njaay kon mu mel ne li ñuy wax ixtikaar dañ ko jema leral ihtikar bi dagan ak bi daganut ihtikar bi dagan ak bi daganut ihtikar moy lan moy ni commerçant yi di def bu gerte lambe bari lol ñu jël ko denc ko ci seen magasin yi bam bam mu ñu gënné ko jaayat ko amna yu dagan amna yu dagut aji laaj ji fay laaj ni amna marchandise mo nit ñi dañ koy aajo ci waxtu ci waxtu yi waaye dafa bari ci marché bi lool te marchandise moomu kat du dund jullit ñi doonut li ëpp ci dund jullit ñi doonut dund jullit ñi kenn du ko dunde ndax daggan na ci man ma jënd marchandise moomu denc ko ba waxtooñ ko soxlaa bu waxtooñ ko soxlaa ma génne ko jaay ko ngir man ci am bénéfice bu bari walla bénéfice ba ma cay am mooy gën bénéfice ba bu ma ko jaa bu ma ko teeloon a jaayee ca waxtu wam bare mooy ëpp bénéfice loolu lay laaj ndaxte ndax daggan na am daggan ixtikaar boobu dañ naan ko daggan na ci jullit bi mu rënk loo xam ne mu denc loo xam ne du dunduk jullit ñi te jullit ñi duñ ko aajowoo lu bari waaye ci sartum nag mu bañ caa jublu ak téngal ak koñe julit ñi ci ci ca ya. wala mu doon lor ci lenn ci commerçant yi maanaa muy lu mel ne euh, nit ki jënd suuf ngir tabax ko ginnaaw bàyyi ko luy tolloog at wala lu ëpp at jaayaat ko ginnaaw ba nga xamee ne njëgga yëkkatiku na maanaam yokku na lu mel ne niñ koy defee léeg-léeg jënd ab pàkk wàcc ko luy tolloog mi at jënd woon ko 2 millions wàcc ko luy tolloog nangami at jaay jaay ko 5 millions loolu dara nekku ci loolu lay mu ne dara nekku ci ndax loolu du ak dund wala mu jënd ay jumtukaay walla ay bagages yoo xam ne dañ ko utiliser te bari na ci marché bi lool njig gi lamb na mu denc ko bam cher bam xawa cher mu génne ko di ko jaay loolu dara nekk su fekkee bagage la su fekkee du ak dund kon loolu mooy ixtikaar bi nga xam ne jaayis la maanaam rënk marchandise mi nga xam ne dagan na denc ko ci magasin yi waaye su fekkee loo li ciy dégg kon bu fekkee li ëpp ci dund gi la loo xam ne dundug jullit ñi la nga di ko denc ngir ñel leen loolu moo daganut kon loolu mooy ixtikaar bi nga xam ne daganut ixtikaar bi nga xam ne daganut mooy denc marchandise moo xam ne mënta ñàkk ci dunduk jullit ñi mënuñu ko ñàkk jëfandikoo lu mel ne ceeb ak pepp ak yu mel ne noonu mënta ñàkk ci dundu jullit ñi nga denc ko loolu dafay tegtale ak wowu xol ak dimbalante ci bàkkaar akuk noonu te loolu ku ne xam ne bokk na ci bàkkaar yi gën a mag yi nga xam ne lislaam daf koy tere te day dikk dafa dikk ki koy def mbugal mu tar ci àdduna ak àllaaxira ndax yéen sa sam daf ne laa yaxtakiru illa xaatiun ay murtakabun lil lil ati nee na kenn du def ixtikaar lu may ki nga xam ne def ko tu njuumte la kooku rek mooy def ixtikaar mooy jël li jullit ñu soxlawoo ci dund di ko denc ci magasin ba mu cher mu génne ko di ko jaay وروي أحمد في مسن في مسند في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من أسعار أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ينتي بنينا képp ku dugg ci jéem a seeral njëgi jullit ñi maanaam jël بمو سير ngir seeral e, njëg gi ëllëg yowmal xiyaam sunu boroom dana ko dij ci pàkk boo xam ne sawara fa nekk maanaam dana ko dij ci ndànd fay-fay goo xam ne te digg sawara ngir mbugal ko fa wala iyaadu billah dellu na tamit ne man ixtakara xakratan yuridu an yaxli biha ala almuslimin fa waxaati un képp ko xam ne def na ixtikaar ngir bëgg a seeral marchandise mi ci jullit ñi kookee ma nga ca njuumte lu rëy dellu na tamit ne ci xadis boo xam ne xaakim moo ko solo man ixtakara xakratan yuridu an yaxli bihi ala almuslimina fa wa xaatiun waqad waqad waqad baraat minhu dimmat képp koo xam ne jël nga marchandise jullit ñu soxla ko ak dund lu mel ne ceeb ak yu ni mel nga rënk ko ci say magasin ba mu cher nga bëgg koo génnee jaay ko yonent bi nee na ku ne ci te nga te sun borom kóllëre gam séqoon ak yow dagg na ko kon nga xam ne ixtikaar kon e, li nga xam ne jullit ñi dañ ko ittewoo ci seen dund nga denc ko ba mu seer a nga ji nga di génne ko di ko jaay lu xaraam la lu bon la lu ñu tere la kon loolu mooy li nga xam ne tontu nañ ko ci maanaam masala boobu kon mu mel ne euh, kii dafay laaj ne góor goo xam ne dafa feebar dafa tawat dafa feebar waaye ci feebar boobu ca la faatoo bi mu feebaree ak bi mu faatoo ñaari weer lay tollool waaye bi mu feebaree dafa jaay kenn ci doomam yu góor ab pàkkam maanaam da ko jaay ak kër benn kër ci këram yi la jaay kenn ci doomam yu góor ci feebar bi jaay ko nag nga jëggu yomb lool muy laaj nag ndax njaay mii njaay mu wér la ci lislaam wala wérul ñu ne ko tontu bi mooy njaayum ku feebar ba pare di jaay ñi ko war a dond loole dañ koy téye maanaam njaay ma dañ koy arrêté bu fekkee way dond yu ci des wéyal nañ ko dañ koy wéyal dañ koy bàyyi njaay ma ja njaay ma wéy doon njaay mu baax waaye su fekkee bi mu feebaree li muy jaay jaay na ko kenn ci doom yi waaye wéraat na ca feebar ba wér na ca ginnaaw bi mu doora a feebaraat su fekkee wér na ci rek dañ njaay mi wér na wéy na kam ko jaay ci doom yi dagan na waaye su fekkee wérut ca feebar boobee ca la faatoo kon dañuy laaj way dond yi suñ ko nangoo wéel ñu wéel ku suñ ko nangutu wéel ñu ñu ne njaay mi baaxut kon loolu mooy li nga xam ne tontu mën nañ koo tontu ci masala boobu mooy xukmu bay al marid shay'an min mumtalikaatihi li baadi warithati maanaa atteb jaaye ku feebar ku nekk ci tawat jaaye dara ci alalam ji nga xam ne moo ko moomal boppam ba pare jaaye ko kenn ci ñi ko war a dond loolee comme niñ ko waxee su fekkee tawat ji wéraat na ca dañ koy wéyal su fekkee wéyu ca wéru ca bu ko defee booba dañuy laaj way dond yi lu ñu wax ñu ñu wéyal ko mu mel ne kii tamit dafay laaj daf ne damaa gis lu bari ci nit ñi ñuy jaay ak a jënd ci waxtu ajjuma waxtu yu ñuy nodd ajjuma ñuy jaay ak jënd lu bari ci nit ñi di jaay ak jënd ci waxtu yu ñuy nodd ajjuma nee na léeg-léeg sax ma dégg ñu bari ci nit ñi ñu nekk ci seenub liggéey ne ci seenum commerce ba ñu taxawal jullik ajjuma nga gis kenn ci ñoom jóge ca liggéey ba ñëw daldi ànd ak imaam ràkkaay yi bi ñu xutbaa ba pare mu daal di ñëw daal di kàbbar ànd ak imaam julli gi ba mu paree mu gaawantu delluwaat cëb liggéeyam mu ne fa maa xukmu hada bay lan mooy àtteb njaay mi wa maa xukmu salaatu hada rajul lan mooy àtteb julli gii góor bi lewaay nee na daal damay gis lu bari ci nit ñi ñoo xam ne dañuy yàkkamti lool xat lool njaay mi tënk leen wala liggéey bi tënk leen ba bu ñu noddee ajjuma duñ julli ci waaye dañuy bàyyi ba imam xutba ba wàcc ci bar bi ba dara desutu bar ñu bàyyi seenub liggéey daw door a bokk ci julli ga loolu laay laaj julli googu ndax baax na am baaxul nee na day laaj tamit ba tey ndax njaay moomu ñuy jaay ginnaaw ba ñu noddee noddoog ajjuma pare ndax njaay ma baax na am baaxul dañ naan ko sopp nañ de jullit bi muy teel a dem jumaa bisub ajjuma teel a teew ca jumaa ya njëkk imaam di yéeg ca minbar ba di xutba ngir waxtu yaatu wow mu man cee def taxiyatul masjid nuyu jàkk ji dugg dawal ñaari ràkkaa yoo xam ne faatee képp lay doon muy nuyoob jàkka dañuy bëgg te mu man faa toog jàng fa tuuti ci alquran balaa imaama man balaa imaama yéeg ci xutba ba maanaam dégluwa dégluwaale bayaan ba ci jàkk yi nga xam ne dañuy def bayaan njëkk ñu def xutba ndax xutba bi arab lay doon ci ngirub Malik ndax maalik moom jàpp na ne xutba def ko arab waajib la kon képp ko xutba ci lu arab sa ajjuma baaxul bal sax ngirum Malik dañ koy teengal lool ba dañ naan ab dëkk su fekkee mënuñoo def xutba arab ajjuma wàcc na leen kon moo tax ñi nga xam ne dañoo topp Malik dëgg-dëgg dañ njëkk a def bayaan boo xam ne dañ cee waxtaane actualité ba pare firiwaale ci xutba ba imaam door a ci kaw bar bi xutba ba mu def ko xutba bu arab nga xam ne bu ko defee lañ bëgg dana am naka noonu tamit rot na ci ngëneelul teel a dem juma xadis yu baree baree bari rot na ci yoo xam ne dañuy wax ngëneelul teel a dem jumaa bu imaam bi noddee nga jóg dem ca jumaa ja war na ci jullit bi mu dem ci jumaa ja laata imaam di yéeg ci kaw minbar bi di xutba jaay ak jënd moom ci jamono ji ñu nodde dafa xaram noddug ñaareel dafa xaram jullit bi di jaay ak jënd moo tax ulamaa yu bari iftaan ci fuqaha yu bari iftaan nañ ci ci ak ñàkk wéram njaay ma wérut doonul njaay mu charia reconnaître xaraam na tamit waaye ñi ngi daliloo ci waxi borom bi subhanahu wa taala jëm naan yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yawmi aljumaati fasxaw ila dikrillahi wa daru bi subhanahu wa taala di wax ne ee yéen ñi gëm suñu noddatee jul ci jullik ajjuma na ngeen daw dem julli ji na ngeen waaxu dem julli ji te bàyyi njaay ma bàyyi jaay ak jëndante ma loolu moo gën ci yéen cey bu ngeen ko xamoon loolu borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul jumaa aaya ne waaw ki nga xam ne nag du dikk ci jàkka lu may ginnaaw ba xot ba ba jeexee kooku moom wala may dañ ne julleem deesu ko nangu deesu ko nangu mooy deesu ko jox tuyaaba maanaam julli gi dana julli ba pare waaye du ci am tuyaaba lu may mu doon koo xam ne daa loru dafa am ngànt moo ko tee teel a ñëw ci jumaa ji waaye koo xam ne bàkkanam rek la topp day toog bu mu wóor ni ko ña ngay leqaamal imam mu door a bàyyi liggéeyam door a dem ànd ak imam taxawal ngir daa yàkkamti buñ sëlmalee mu gaaw jógaat kookee kat wala mooy dañ naan ñàkk fekki xutba ba mu ñàkk fekki xutba ba te moo ko tey ñu bari ne nañ julli ga du ci am tiyaaba ndax dañ naan ñaari làkk ñaari xutba yi mooy mottali ñaari rakka yi ci des kon dafa mel ak julleem dafa manqué moo tax ñu ne deesu ko jox tuyaaba maanaam julli ga mën naa nekk julli gu wér julli ga dana wér farata ja wàcc na ko du julliwaat tisbaar moom waaye du am tuyaaba niki ki nga xam ne daa dem màkka sàcc alali jàmbur dem ci màkka ku sàcc alali jàmbur dem ci màkka aj ga wér na lislaam du ko wax aji waatal waaye du am tuyaaba ci aj ga loolu noonu la masala bi demee képp koo xam ne da ngaa lànk ba ñu julli ji àjjuma te yaa ko tey da ngay bàyyi ba ñuy liqaamal imam nga door a dem nga xam ne xutba ba du la fekk te ci sa sago rek nga ko defe kooku dañ naan kat julli ga du ci am tuyaaba donte julli ga baax na waaye julli ga du ci am tuyaaba moo tax di wax ne wa kam min salatin tasixu wala tuqbal mu ne fa kullu salaatin maqbulatin saxiixatin wa laysa kullu salaatin saxiixatin maqbulatin fa kullu salaatin maqbulatin saxiixatin waaye wa laysa kullu salaatin saxiixatin maqbulatin nee na gépp julli goo xam ne nangu nañ ko julli gu wér la waaye nekkul de gépp julli gu wér guñ nangu la julli léeg-léeg mu wér ba pare kenn nangu ko kon loolu mooy li nga xam ne indiloon nañ leen ko Euh, ci seen euh, thème de la semaine di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lu jub ci kàddu yi ci borom bi subhaanahu wa la lu ci dëng ci sunu ñàkk xam-xam la ak sunu gàtt fasaxa di lu ñëpp di wax ne waxkat moom ñett koy déglu ki ko gën a xam li muy wax fuuf kooku ñu ngi koy jégglu njuumte tey ak ki yam ak moom ki nga xam ne ñoom ñaara tolloo alliwo kookit lu mu ci gis jàpp ne njuumte la ñu ngi koy jéggalu ak ki ci xamul dara nga xam day toog di déglu rek luñ ko jox mu jël kooku moom xamu ci dara kon seen mbokk ma Samba Silla moo leen doon defal euh, thème de la semaine ci ay laaje ki tont di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa barakatuhu wabarakatuh